jërëjëf mbokk yi jërëjëf mbokk yi gannaaw ba ñëwee fi nga xam ne mooy arène nationale gis li nga xamante ne nii mooy la fans club Baba Diakhal def ànd ceeg seen mbër waaye ànd ceeg waa jàmm gën bi yëpp yëpp yëpp gis nañ fi ki nga xamante ne nii mooy jiite non à la bi muy Liss Ndiago gannaaw bañ fi sànni ay kàddu ñoom seeni supporters wax jéggalu tamit acte bi nga xam ne moom lañ def mooy li nga xam ne moo fi amoon le 19 juin fii. ci arène national diggante Baba Jaxal la woon ak Bébé Bismi gannaaw ba ak bi joxee li nga xamante mooy verdict bi xale yi ànd ak foudre de jeunesse topp seen xol ba def li ñu def ñu ngi ko jégaluwaat waaye nag ñu ngi taxaw koo xamante ni nii yaakaar naa ni bu ñuy wax làmb moo tax ndax mooy kilifay làmb gi muy président Bira Sène président ñu ngi nuyu. naa leen maa ngi nuyu internautes yëpp di ci jiital surtout axlu làmb ah particulièrement le CNG de di nuyu mbokk Sénégal yëpp. Hmm. président noo gisee acte bi nga xamante ne nii Baba Diakhal moom la def ak fan si club bi nga xam ne moom la bon ni ma ko vraiment dama ci am parce que euh, voilà un boo xam ne Baba posé na ko gannaaw ba mu ko xalaatee ba mu ñor ko mu dox ñëw euh, tàggoo avant dafa jéggalu ndax lim constaté nee na neexu ko. ndaxte loolu du yëfu waa Sénégal te aussi du yëfu waa jàmm gën ndaxte gis na ne turi jàmm gën mu ngi commencé woon di ñaaw ci yenn yi nga xam ne moom lañ constaté mu ne mais loolu dana ci taxaw ba dootu fi amati alors euh, mu ne moom yéenim moo ki mbokkam ak am si jàmmam ak ay fans clubam dañoo taxaw pour defar chaise yi dañoo taxaw aussi pour que nit ñi xam ne ñoom ñi dëkk jàmm gën ay noble citoyen lañ ay nit ñu baax lañ ñoo xam ne xel yu rafet lañ am pour réew yi aussi ndaxte moom fa la soqe ko bokk ñun aussi ñu woon ko ne ko xam nañ waa jàmm gën xam nañ ñu baax a fa ne ñu am fulla ñu am fayda ne nag loolee dina tax a jóg euh, séntu woon nañ ko ci yéen waaye du façon bii ndaxte bii mbétti la ndaxte forcé wuñu leen kaay defar ko yéen waa jàmm gën toog ne ñun nañ dem defar yi muy say mbokk ak say am si jàmm ñun loolu vraiment nañu neex lool ndaxte nii lañ mën a def ba remercier autorité bi pour remercier Sénégal yi nga xam ne vraiment taxawoon nañ pour ñu defar arène nationale ñu di ci jiital njiitu réew mi le monsieur le président de la république nga xam ne jagle na arène jeunesse bi monsieur le ministre Matar Ba taxaw également ne nañ ko livrer jeunesse bi di ci suivre di accompagner kon nag la meilleure manion manière pardon pour ñu wax euh, monsieur le ministre ak monsieur le président de jaajëf mooy ñu toppatoo arène nationale ñu entretenir ko entretien weesul nga ñëw sax bëgg a toog gi chaise bi fekk mu damm wala mu weng nga tegaat ko ba mu baax nga toog seetaan dem kon bu ñëwee ne arène bi suñu yëf la fii mooy suñu bureau fii mooy suñu place su kaay ñoom mbër ñi mu ne man damay taxaw ak samay ñooñ pour ñu defar ko dañ ci dañ koy rafetlu ndaxte lii mooy taxawaay bi nga xam ne moom la ñu séntu ci ñoom te li mooy taxawaay bu baax boo xam ne fan sa club war na ko def naam gëm nañ te xam nañ également ne chaque journée bu amee muy discipline làmb ak beneen discipline ci stade bu ñibbee daa dana am lu yàq foofu mais quand même dañu ñëw defaraat rek ñu avancé alors phénomène boobu lañ buggoon vraiment ñu dindi ko setal deru làmb en général lii xam nga waa làmb ñoom ñoo ko def te mbër acteur direct moo ko def muy mbër di baaba jaxal xalaat ñëwal boppam dox ci tànkam gannaaw ba mu yónnee assisé manager mu ñëw rencontré ma dem moom mu ñëw aussi dox si loolu wax ne moom dafay taxaw pour defar ne su ko autorisé mu defar ko ñu ne ko loolu lañuy xaar donc bu ñu kontaan ci lool je crois que am na ñoo xam ne dañu roy ci moom ndaxte acte bii am na solo lool lool lool ñun suñu gestion. te xam naa site yi da ko wasa da ko tasaare ba ñëpp jot ci xam ne lépp lu waay am jàmm ko gën jàmm gën nag na ci kii bi jàmm gën fa mu dëkk jàmm gën ñoo dox si lii jàmm ji vraiment ñu kontaan ci lool vraiment baaba ñu ngi koy encouragé xam nañ ne bon champion la te aussi euh, am na avenir ci làmb ji li mu def nii dana tax ba. ñun dañ ko nommé mu nekk ambassadeur ci jàmm gën ambassadeur non violence parce que t-shirt yi mu indi am na solo trop ndaxte image yi dafa wax image yu ànd ak ay chaise boo xam ne dañ ci def croix mooy que lii leen ko laal hein c'est très joli pour cent defar nañ ànd jàpp ci arène nationale bi dafa am solo trop donc euh, waa yi sam-sam non à la violence jàmm gën non à la violence très bien bëgg nañ ko dañ koy jëfee tous les jours et puis incha allah dina baax sax dafa baax mais bu ñu ñëwee ba si côté entretien xam mooy stade bi. gis nañ ni tamit stade bi parfois même bu du côté supporter yi. dafa mel ni entretien bi dafa xaw a sooxe. parce que gis nañu parfois léegi nee nañ baaful doxatul courant bi doxatul. yan explication non euh, courant baa ngi dox bu ñu courant bi dox courant baa ngi dox fi mu ne nii yéen a ngi liggéey yéen a ngi branché ci courant mu ngi dox normalement xam nga partout dans le monde léeg-léeg machine dem ba mu yàgg mu arrêté. benn machine jëlaat loolu loolu c'est loolu du du fee boo xam ne jar na souligner parce que c'est dafa nekk loo xam ne day am toujours groupe baa ngi dox aussi am na groupe bu am doole boo xam ne mën a fii yëpp léeg bu courant xawee kii tuuti rek ñu taal ko mu ñëw normal mu dox sànq bi ngeen daal liggéey su ngeen bëggoo ñu taal group bi ngeen liggéey yi amul problème fi amul benn problème fi nekk baafali yi waaw am na ay baafali yoo xam ne doxatuñu mais loolu aussi dafa am partout dans le monde xam nga dafa am yoo xam ne nekkul fee divers que ne baaful bii dafa paan mais kii ñëw nga indi sa sa sunu taal loolu la xam nga euh, euh, gestion stade dafa am chaque journée nit ñi dañuy wër xool li nga xam ne yàqu na ñu defar ko su ñu ko mënee defar léegi dafa war a dem ci kaw ñu yëgal ko ci kaw ñu ñoo defar ko mun loolu ñu dugal fii vingt cinq mille personnes vingt deux mille personnes ñu pare toog toogin wu bokkeewul sax ñibbi nga ne du fi yàqu dana wis bu am wis bu damm lava bu bu bu bu toj eh, benn lampe bu grillé et tout ça c'est comme sax mais maintenant dañuy defar par ndànk-ndànk foo dugal juróomi juróomi junni nit ëpp na ay dëkk ci yenn dëkk yi ñu dugg fa après génn dem nga ne dara du fay non no non il faut am lu yàqu loolu nag mooy une gestion n'est-ce pas au jour le jour mooy nag euh, mais comme dafa am gestion au jour le jour am également entretien au jour le jour ñun il faut ñu boole ci population bi boole ci acteurs yi. ñu ñëw léeg-léeg di ci jàpp parce que loolu mooy tax bi arène bi aussi mu mun fee yàgg mais munuñ xaar lépp état gestion bi ci ñu la war a njëkk jóge d'abord comme acte bii nii dañ ko war di multiplier mbër yi war nañu toog léeg-léeg ñu ne bon suñu arène nañ dem defari ko nañu def benn set setal wala ñu def benn entretien yooyu dafa am parce que ñu bari ñu ngi fii ay mbër lañ mais ouvrier lañ dañu am seen métier ñëw xëcc say apprenti boo tey de même dara même boo defee ñëwee defar benn chaise c'est une satisfaction parce que dañ xam ne ñii xam ne ñoo ko moom lañ ko defar te nag ñu dellu ci ginnaaw avant le président la République di inaugurer arène bi mais am na doon waxoon ne mbër yi mérité wuñ ko ne waruñu leen defal vingt trente sept milliards trente deux milliards fii nii am na ñu ko doon wax te pourtant tey arène nationale bi dafa loger ay fédération yu bëri bëri bëri fii ñu ngi fii seen bureau fi la nekk léegi séminaire yu bëri fi lañ koy defee également donc. Euh, le président de la république juumuloon ba muy ne aar national bi nañ ko fi def acteur lamb yi aussi ba bañ koy laaj juumuñ woon pour laaj ko parce que xamoon ne dafay amul njëriñ euh, waa gox bi amul njëriñ réew mi fi mu nekk ni monde entier mu ngi roy di toppatoo toppandoo par Sénégal ci arène nationale pour que ñu am ko même fédération mondiale mu ngi bëgg a def benn arène mais arène quinze mille places la wax ne moom lay defar ñu ñoom arène yu baree baree bare yoo xam ne si leen ko ba léegi moo tax jour na leen invité ngeen ñëw ñu def une visite guidée ngeen xool arène bi li fi nekk yëpp li mën a attan li mën a def comme vraiment ay activité bari na lool alors arène bi toppatoo ñun ñii d'abord la waragum ñun ñi fi nekk pratiquant ak gestionnaire ñun nous gérons mais pratiquant yi mooy xale yi defar nii mbër yi ñun dañu war def en synergie suñu plan de travail fexe développer ay stratégie yoo ne a chaque fois régulièrement ou bien de temps en temps ñu ñëw defar dara ñëw rek ne booy journée bi wala weekend bi lii la ñu defar ñëw seet defar affaire yooyu xam nga saison baa ngi léegi mu tëj naroon naa rafetlu lool ñu toog ay mbër comme nii mu ko defee nii wala ay am ay fans club dañu de bu ñu tëjee saison bi bëggoon nañ ñu am benn jour ngeen may benn jour ñëw defar mu ne ñun wàllu plomberie la ñuy yëngatu ñëw ne dem plomberie bi nañ ko xool ñëw defar jàpp ci loolu jàppal ma jàpp moom moo moom moom moo am solo ci réew mi fi ne nii. ñi naan wàllu courant par exemple dañ bëgg a ñëw pour ampoule yi brûler ñu ko ampoule yi brûler bëriwul gaa ñii ñëw ne ñun ay soudeur lañ ñii ñëw ne ay ay ay menuisier métallique lañ dañ bëgg a ñëw ci chaise yi defar lii defar laa amul nag stade ci monde bi boo xam dañ koy defar chaque fois ñu di ko utiliser tu amul ay yàqu-yàqu na am lii yàqu ñu defar yàqu defar loolu rek la amul leneen kër sax da ngay dem sa sa fauteuil day yàqu nga defaraat ko sa kër salal bi ngay tëdd sax day yàqu léeg-léeg nga daal di ko defaraat avancé waat donc arène bi loolu du ay fait divers yoo xam ne ñu dañ ko war a di wax yàq na lii ak yooyu suñu njaboot moo koy yàq nag suñu njaboot a koy yàq di nangu ko moo def suñu njaboot ñëw na di ko defar ñu jaajëfal leen gërëm leen sant leen ci mais dañ bàyyi yàq bi te accélérer également suñuy action ci defar loolu mooy dëgg. côté lumière bi ñu bëri tamit dañ naan dañuy bëri gis nañ combat yu bëri dañ jékki-jékki courant bi coupé. Mhm. par exemple bi passé gis nañ ko fii. waaw xam nga mooy li may wax rek. courant ñuy dawal ba mu yàgg courant coupé dama loolu du fee divers loo xam ne yàgg na di am ci stade monde bi xam nga boo seetloo bu tib réew keroog am na finale Ligue des champions la am amul fii te yéen di bu ko seetaan courant bi coupé na aussitôt ñu taal groupe ñu continuer amul problème courant dana coupé waat ñu taal group yi. courant bi wala lumière yi. non du lumière yi non non non pas du tout lumière yi sax amul problème xam nga am na gestion. bu fekkee ne boo taalee fukki làmp mu leer ca la nga bëgg jaru nga taal téeméeri làmp gis nga projecteur yi xam nga bu nekk ñaata ñaata ñaata ampoule ñoo fa nekk compté wu leen ko ëpp na juróom benn fukk bu nekk te benn boo ko ci taalee mu leer lépp waxuma la ñu nekk ci kaw tribune bi waxum projecteur yi nga gis rek pylônes yi am na yu nekk yi nga ñoo nekk ci kaw noonu tiim bëri na bëri boo xam ne soxla ñu taal lépp mais courant bi amul problème du courant bi jóge feneen ak groupe bi fi nekk group bi fi nekk rek mun na alimenter quartier bi yëpp mun na ko te gis nga euh, li ngay gis nii ci installation ëpp na euh, comment ça s'appelle encore euh, doole li nga xam ne mooy stade Afrique yu bëri moo la ëpp doole li nekk fii ci arène nationale bii nii donc il faut pas que ngeen foog ne ay courant amul courant amul problème su amul problème kon duñ ko taal alors ay paan nit sa day feebar mooy paanu nit nit su paanee ñu def feebar matériel aussi day am ndox léeg-léeg mu paan ñu defar ko avancé mais terewul ñu ngi pratiquer comme ñu ngi pratiquer nag am na wartuñu ko wax bon ba courant bi demee dañoo taal groupe bi rek affaire bi am dem et puis mu leer nañ nit ñi bëree ba mu jeex ñu connaît suñu groupe après fayaat ko ñun dañuy toog fi ñu liggéey léeg-léeg mu am tuyau boo xam am na xam nga Dakar daa bëri loolu ci développement la bokk foo ñu ngi gas ñu ngi defar ak yooyu léeg benn câble ñu dagg ko bu ko daggee courant bi day coupé secteur fa mu jëm léeg ñu toog fii mu courant ñu génn ñu ne way dafa am ñuy gas fii dagg nañu benn câble ak yooyu ñu daal taal suñu groupe bu ñu taalee groupe bi rek kon ne suñu liggéey après avancé loolu dal nañu ci ay yoon yoon yoon mais nekkul ne ca courant ba la ca travaux annexes yi wër quartier yi wala wër arène nationale bi ci foofu lay jóge donc loolu yëpp boo sant yàlla la ndaxte bu nekkoon ne aussi ay ay liggéey amul ci réew mi bon duñ duñ avancé. mais lan mën a xaar si li nga xamante ne nii mooy CNG digganteem ak xam nga yow da nga bëgg a da nga bëgg a dox suma kaw ni nga koy waxee su ma génn da nga bëgg ma kii ko non. ñun xale la boo xam ne vraiment dafa nekk ci yoon làmb euh, bu civil woon sa di dem da ngay ne kii bon mu ngi bëri mais mbërëntaan la mais nag xam nga champion la euh, ñu di ko ñaanal yàlla euh, daal mu nekk un futur enfin mu nekk sa roi des arènes alors lii mu def nii daf ñu daf ñu jëlee fu sori d'abord xalaat bi ak ni mu koy waxee ak yar yu mu àndal ak tegg ni mu àndal ci wax ja ak ci doxalin ba euh, vraiment laal nañu xam nga sanction rek taxu ñuy jóg sanction day am njëriñ nga sanctionné nit mu gis ne effectivement juumoon na mais xaaral ma ma ma defaruwaat danaa wane ne juumoon naa danaa wane lu gën li ma defoon kon wane na lu gën li mu ko defoon donc ñun kaam buñ toogee ba jamono jot ba jëmi jamono daañu xool naka la ñuy def ak moom ndaxte lii yombul tey c'est le premier lutteur à le faire. donc déjà l'histoire retiendra que moom mooy premier mbër bi nga xam ne daan nañ ko wala def na lu tax ñu war ko daan mun li ma samay mbokk yàq man naa ko defaree loolu c'est nag acte de haute portée civique loo xam mën a affaire citoyen la alors euh, moo tax be ñu gërëm ko encore sant ko ak mbokkam gërëm aussi waa jàmm gën yi ànd ak moom yëpp beneen nag ne lii mu def nii defal na ko boppam def ko defal waa jàmm gën yëpp xam nga boo toogee ba léeg-léeg nit ñi la non euh, comme ñee daal bu ñuy bëree alors euh, affaire bi day xaw am nu mu demee ñee dama naan non euh, bul di autoriser sax yenn combat yi dugg na fi génn ma ne non ñoom dañu am licence comme ñëpp dañu war a bëri si kon ñoom bu ñu defal dañu may dimbale ci ña nga xam ne xëñ ne ñu ngi jéem a fexe noo xam ne dañ leen di stigmatiser wala dañ leen xaw a ber te ñooñu duñ leen ber ndax waa jàmm gën vraiment dañu am place làmb ji te ñu ngi def yu neex nag ci làmb ji am nag ay champion quand donc ñoom il faut que boole bu dool ci njaboot ji mais aussi léeg-léeg ñu jàdd wala njaboot ji xaw a def noo ñu wala kaay leen lii nii donc loolu la ànd bi noonu la mën a demee rek mais ñun ñëpp dañ ko ànd góorgóorlu arène nationale moom lañ am dañoo dem léeg-léeg Léopold Senghor ñu di ñu fay tere wala ñu ne non fii dañuy football nangam et cetera dem dem ba Diop noonu Iba Mar Diop noonu léegi sax ci mbedd yi sax ñu ne non waa làmb ji kat yéen il faut ngeen dem ñu di ko dox di ko ñaan bi am ko donc nañ ko toppatoo ah xam nga fii mun na dañu tëgg làmb keneen dafiy def leneen déedéet ñun ñooy prioritaire parce que ñoo ko moom donc loolu li nga moom nag dañ koy topp te di ko toppatoo parce que am na temps ñu naan mérité wuñ ko léeg-léeg ña wax loolu bu ñu gisee ñu sànni chaise dañu ne waxoon nañ ko mais xamuñ naka la léeg-léeg ñu rax ñu léeg-léeg ñi rax rax ci làmb ji ñu ci bokkul rax ñu rax ci vraiment def du noonu mais nous avons compris